c'est le dernier message solennel de fin d'année que je vous adresse. mujj bi en tant que président de ñu ngi koy defee ci juróomi poñ juróomi yoo xamante ne ci ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ko wax ci sujet yëpp ñu wax ci ay chiffres. deux mille trois cent quarante quatre milliards sept mille trois milliards et mille sept cent quatre vingt sept mégawatts. cent vingt un bus def ci bilan. nous avons des milliers d'emplois. ngir wàññi nag président Macky Sall dëkk dëkkaan yëpp la lim. ngir boole ci ñëpp. Kédougou Sédhiou Tambacounda Saint-Louis Kolda Linguère Ourossogui Matam. yëg-yëg boo xamante ne. j'ai appris à mieux connaître itam gën ci thème yu mu wax mbirum transport économie éducation ak tamit cosaan ñu boole ko ci discours bi muy gulet. ñoo ngi taxawu sunu artistes yi góor jigéen képp ku yëngatu ci aada ak cosaan ci discours bi tamit artu njoxtu luy ñëw ci la bokk dañoo war a biral sunuy tànk soxal njàng meek njàngale mi daal di ci sof itam li gën a fës ci sunu dundit fi mu ne nii nag état mu ngi préparé wu li mu dëgmale je ferai en sorte que naa def sama kéem kàttan ba jongante yi ñu jëm ñu daal di koy amal ni bu jàll bi comme les précédents dans l'extrême lu weesu la le populisme di manipuler nit ñi mu ngi fi commencé bari des esprits mooy daanaka lépp yemb na mais l'état a tenu bon muy santiment boo xamante ni sama xol sunu dëkk moo ci nekk muy ay ñaan ak aaru Dieu veille sur notre cher Sénégal